suma kër ma waxtaan yi buñ ko mën def dimanche fekk sama dayira daje ma waxtaan ak ñoom ndax yoon weeg bokk yi ak lislaam bi li ma ci xam doy na ma sëkk lay dund du ma gone du ma jaayil ku yàlla jàppale laa ku yàlla dimbali la maa ngi jébbalu ci sama taaw bay Alaaji Maam Cerno ba ma noppee gi sama baay laa ko jox sama bopp Cheikh Balla tax ñu di ma jox seen bopp maa Cerno Cheikh Awa Balla Cheikh Balla am ci Serigne Touba moom laa def muy sama Cheikh Awa Balla ci tey jàpp ci moom te duma ko ba addina ak laaxir maa ngi dee Moustapha léegi naan ko bu sama pexe jubee dinaa ko jox addiyee cent millions kañ laa koy waaye yéene naa ko te maa ngi di jëndi yoon wi joxe la ak jëf ndax Sëriñ Tuuba ku lépp loo joxe dàq laa joxe mu fay la ndax yàlla fi kulli sunbulatin mi'ata habatin wallahu yudaa'ifu liman yashaa wenn fépp ngay lebal yàlla ca noor faraas ko yàlla fay la ak tan daf ko téeméeri gub gub wu ne mu def ci junniy fépp te noona la yàlla y fee lépp dara am tuutut te yàlla rek la na am ak rasul mi sëriñu sëriñ Tuuba Cheikh du Bamba rek am moo tax duma murit garaaw mooy man du ma jullit du ma yé mooy du murit gawuma yàlla bëgguma rasulullahi mooy du murit ku bëgg yàlla maa nga bëgg rasuula Cheikh Ahmadou Bamba daa nga doon murit man murit laa te sama maam moom rek a jàppale Serigne Touba ba Serigne Touba am lam bëgg Serigne Touba lam doon ñaan yàlla lépp am na ko te seetaanul doomam yi te ku xam Cheikh Awa Balla xam ne moo ko jur ndaa moo ko bopp mu jox ko li mu yor waaw ko nag xam na ko boole doom yëpp jox sëñ Modou Habib ak sëñ Abdou Khoudous mi jur Bassirou Mbacke mi nga xam ni biñ koy jox baatu yoonu Darou Mouhty booba ci sëriñ Moussa leen tàmbalee ba ci sëriñ Abbas yàqu ci dara defar rek lay liggéey te ku rafetub juddu la ku am xam-xam la ku jàng la du jànnaxe du jaxasoo du jaawale maa ngi koy gërëm di gërëm sama mbokk yi ma bokkal ba noo bàlle yëpp ba wuma gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp te bu ma ren danaa waxtaan ci réew mi loo xam ni yàlla rek ma ko xamal maa ko xam waxtaan ci yoonu murit Cheikh Ahmadou Bamba rek leen yaakaar ku ko yaakaaru man laa bañ a gis addina ak alaxira tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sax sun borom ma ko tuddi Muhammadul Habib lawlaa muhammad ma xalaqtu xalqan bu doon muhammad du ma bindu dara moo tax ma bindi lépp rasulillahi mooy sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba moo tax sëriñ Tuubaa ne bu ma kenn wooyte Ahmadou Bamba Sàll Mbàkke nañ may wooye xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa li sëriñ Tuubaa def ci lislaam def ko Tuubaa kenn defu ko mm-hmm. jumaay amul ci àddina boo demee màkk nguur gaa yor jumaa ja lu toll ne nguur ga ku ko yor nga xam ni liy xaalis di wurus di pétrole nekk ci biir géej gi nekk ci suuf si sun borom def ci suuf sa lépp ngir rasul ay ma fa tëdd ka jiite mooma réew man ngaa tabax lu ne tuubaa ko fi ne sëriñ tuubaa bi mu koy sanc di ko gor ni cerno sama kër ga laa bëgg jumaa joo xam ni jumaay njëriñ bu rumbal la cay tollool mu am ku ko wax ci bokk yi kooko ne ko mën la am sëñ bi tàng jër daane nañu ma wool ceern ñu woo Seex Ibra Faati mu ñëw ko diw di dikk na fi ma di ko ko wax mu ne mën la am moo tax ma woola ceern ne ko man naa am kooko dalaa xamut ndax yow loo bëgg yàlla def ko te yàlla tëliwul dara mu ko demal natt sama kër ga na mu toll yaa xam fañ may dencet foofa la yaa ko teg tuuba li abdin muridin saadiqin lahumoo bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaat tuuba rekk la